asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu El Hadj Thierno Moule Sow king of the king king of the king le du monde mu mel ne tey nag kii di Aline ak ki nga xam ne mooy Batiga yàgg ak sëriñ bi lool doon wëlëreem man xam ne Aline ku ko xam-xam ko ak alaaj Thierno Moule Sow ndax ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul defe naa ne bërki démb tubaarkàlla lu ñu jógee fële ci kër gi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy king of the king di le roi médecine traditionnelle du monde di borom national di borom international di mu lay Sow borom baatinu baatin tubaarkàlla ñëw fa mu jël leen audience defe naa ne nettali ci gémmiñu borom la dàqee donc damay njëkk a jël ki nga xam ne mooy Aline tubaarkàlla mu nuyoo waaye wax li nga xam ne moo sabab bis bii di ñaari rakka yu tubaarkàlla tey mu mel ne ñu ngi koy defee fii ci kër Batiba Alioune nuyu nañu. waaw Matar. fay naa leen nuyu ñëpp. xam nga boo nee si waxu xalifa bi Thierno mu si sawar a wax. dëgg la sawar si moom. dëgg parce que booy wër social. mooy Thierno Moule. Hmm. booy wër nit bu baax. mooy cer Moule. dëgg booy wër nit bu gore. Hmm. dullite. mooy Thierno Moule. dëgg Thierno ñu ko xamul ñoo koy xalap waan ñi ñi xam nañ Thierno mm-hmm. bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñu lu tax mm-hmm. ba Thierno kilifa la dëgg ñu koy ñaanal gudd fan ak wér Thierno boo koy ñaanal xam nga la koy ñaanal Matar mm-hmm. ñaanal ko gudd fan ak wér dëgg la ba Thierno nu waroon am am na ko am na ay milliards dëgg la ay milliards milliards la Thierno yor ku xam ku gis kër gi mu yor Djily Mbaye dëgg la xam ne caaxaan tabaxul lool dëgg la caaxaan yóbbul nit Djily kër gu mel noonu mu mel ni sato keroog dañoo dama ànd ak sama doomu ndey sama lépp mooy Badika. dëgg la. Badika lu Thierno xewle suba ba ngoon dafay taxaw. dëgg bañ koo ko waxee Lamine Gueye moo woo Thierno ne ko Thierno. Mhm. ah Badika de day def safar mu ne ko. Mhm. Badika mooy def safar ah mhm. day def ñaari raak. na ñëw kër ga ma teral ko. dëgg la ndeysaan Badika woo ma. xam nga Thierno pour gis ko sax mun nga ko ñetti weer doo ko gis. billaay dëgg la ñu dem ñu fekk ñoom jóob si bunt bi. dëgg am na sax ay patients ñu fekk foofu yu bari. dëgg la waaye Thierno daf ñu gis. Mhm. ci caméra yi nee leen ayu bisimilah yegg si leen. bu ñu ba ñu yegsee mhm. ñu fekk Thierno. Mhm. ak ay taalibeem ak ñu mu nekkal di liggéey. mu dalal ñu. teral ñu. dëgg jël xaalis bu bari. dëgg jox Batika ne ko bis bi sa bis la. sama bis la parce que da bokk si man. dëgg la parce que Thierno keroog wane na. dafa bokk si ñun. dëgg Thierno génn génn na teraanga bu bari. dëgg la Lamine xaalis bu bari def ku si enveloppe. dëgg la te xam nga ku xam Thierno. dëgg la ñu muy jëf la nga xam nga du may xaalis bu ndaw. dëgg ku ko xam. dëgg la Thierno du may lu ndaw de. dëgg la enveloppe la def. dëgg la enveloppe kaki. dëgg la jox ñu xaalis bu bari. dëgg la ne leen lii maa ko dimbalee. dëgg la tey suba dafa xëy woo ne ma Aliou ndax am na lu manqué ma ne ko noo dara manqué wul. dëgg la te xam nga nit bu la yëg. dëgg la Thierno si social lay dox. dëgg la man Thierno xam nga kan laa koy xoolee. dëgg la Cheikh Béthio. dëgg la ndeysaan Thierno lu muy Thierno Thierno ay xaalisam. dëgg la bokk ñëpp. dëgg la di si jàppale ñëpp. dëgg la man moom sama bopp laa xam no sax su ma ko woowee ne ko kar. dëgg la mu ne ban problème nga am balaa may yegg wéef na ma. la kooku Matar lan lañ ko war a ñaanal. gudd fan ak wér. ñaari ràq yi. ak jabar Thierno lu xew. su social Thierno mu ngi ciy def teraanga. dëgg lu mu am bokkook jaamu yàlla yi. dëgg la Thierno dañ koy ñaanal gudd fan. ak wér yàlla na ko suñu borom defal jàmm. Matar Thierno dafa gore dafa baax. man aliw Aliou. Mhm. Thierno mhm. amuñu sa fay. nit bu lay ñaanal na la ñaanal guddi fan ak wér. loolu kese. macha allah amoon ma si wax. après mhm. xaaral ma jox Lamine parole moom itam mu sànni si. Lamine borom terrain yi. Lamine borom terrain yaa ngi noonu. Lamine Gueye <laughs> sant bi rek a doy waar de. salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi ziar yéen ñëpp. maa ngi ziar grand Batika. bi la. ñu grand la. moo ma yar. dëgg la Aliou Pata. sama grand la waa ay maas leen. dëgg la ñoo defandoo lépp. ndeysaan tudd Batika. dëgg la tudd fi Aliou Pata tudd fa Lamine. dëgg la meree. dëgg la mu woo ma. dëgg la su ma meree. dëgg balaa ma xaaw mu yegg ci. dëgg la mu nekk sama diggante. ndeysaan lu lu yàgg dëgg la. Aliou Pata mii. lu nekk laa koy yegg. dëgg la ci kanam Batika. amul lu ma xaw waxul. dëgg kon tey jii ba ci ba ci xewle. dama bàyyi ci mu liggéey ñëw. dëgg oto jàmbur laa yor nii. oto laa yor. dëgg la ñëw jàkkaarloog nit bu la labalee bëtam. dëgg la nga koy fay borom. dëgg la oo koy wax. dëgg li mu guddi guddi guddi. dëgg la est dëgg la. kenn mu lay soow mi ngeen di wax nii. dëgg la man kenn mu ko jàngal. dëgg la xam naa ko. dëgg la bi muy métti dix-neuf. dëgg la yi di ko xeex. dëgg toog mooy ñu ngi xeex loo xam ne xamuñu ko. dëgg nañ ko de. dëgg la ñu loo xam ne xamuñu ko. xamuñu ko de di ngeen nit. dëgg la koy bàyyi ak liggéeyam. dëgg la buy xeeb liggéeyam. dëgg la yàlla doomu aadama. juróomi baaram benn tollawul. benn tollawul bu ci nekk. amul lu ko waral. dëgg la bu ko neexoon lépp mu tolloo. dëgg la ma dara tollawul. déedéet. te nam loo sooy saa yu ma soxlaawee. dëgg la dañ koy amul une heure du matin hmm. amul deux heures amul trois heures te ëpp temps hmm. bëkki dem woo na ma damaa jàpp xam na ma dëgg la te saa yu ma ko woowee dëgg la mu ne ma dëgg gu la de hmm. ma ne ko damaa jàpp de mu na ma saa yoo pare nga ñëw dëgg la te saa yu ma ñëwee dëgg la di nga ma defal teraanga ñëpp lay defal kay di nga ma may xaalis te ma ko waxee sama soxla nga ma ko fajal dëgg la te fii 19 laa dëkk dëgg la te lu ko xeex 19 ñëpp xam ne leen bu ñu leen jàkkaaloo ci bët dëgg la leen dëgg la at na amul solo dëgg la nga nit ki bu ko xeeb dëgg la même bu xamul dara sax kenn du xeeb doomu aadama dëgg la ab dof bu nekk ci mbedd sax dañ ko war a ormaal dëgg la waxatuma jëmm doomu bu taxaw daa la yaa allah kenn mu lay saw ay discours am jarul wax. dëgg la ku dugg ci internet. dëgg la seetaan ko. dëgg la xool ko. dëgg la nga xam kii kenn mu lay. dëgg la wax nga fi nekkee rek. dëgg la olof Ndiaye dana kuy sa baay. dëgg la boo tëggee combat da xam kuy daan. dëgg la bët bu ñu jàkkaarloowee. dëgg la nga xam kuy sa pap dëgg am na nekk ci mbedd di wax. dëgg la dafa yomb de. waaye mooy booy bëree dëgg la xam kuy sa papa. mooy li ñuy wax romb dibiteri yomb na waa laqulu moo jafe. laquloo jafe dëgg la ceerno dibiteri waa laqulu moo jafe. dëgg la laquloo jafe. lax moom xam lu ma neex ci moom. dëgg la mën na tolu. dëgg la gëm na boppam. dëgg la wallaahi poosam bokk ak kenn ñëpp xool yem la. dëgg la amul ma Samba. amul ma Demba. baa xam na ne kenn mu weesoo mu njëkk def social. si Parcelles Assainies. si Parcelles Assainies Parcelles Assainies gars di ko toppandoo. moom kese dëgg la billaay. xam nga tax. bu mu koy def. dëgg la nit ñi lu. te ministre jàppale wu ko député jàppale wu ko déggoom laa loolu kay suñu la kenn bi nee naa kenn dama jàngal kenn bi. kenn hmm. bi dama ko xam. dëgg la li mu liggéeyee ñëpp xam naa leen. dëgg la. seen bi ma neex laa de mu koy wax Matick une heure de matin laa koy woo. dëgg la mu baa ko jàmm la. mooy kon def ñaari rakkam ma tam ma la ko yëgal. dëgg la. mu ne ma nekk ñëwee ma tegal ko. ndeysaan te noonu la amee. te bu mu ñëwee Aliou Pata mii moo la ma cin jox na Batika xaalis bu bari. bu bari ma ne ko Batika mérité na ko. dëgg la saa yu ko soxlaa mu ñu ko. ku nekk boo amee sa bët. dëgg da nga koy la. kenn mu la taw. Hmm. jili mbay bu mu nekk. dëgg la amuñu ko fa ëpp xaalis. dëgg la may xool leen. dëgg mu ngi def social ci biir jili mbay ci biir nit ñi. dëgg la ñu koy teg ci. billaahi. Hmm. te munoo ci dara kër bi mu yor moo dàq jili mbay petit. palais moom palais la kër gi muy wax na ma nu mu jëndee kër gi ma dama ko tudd. dëgg wax ko kër gi ba mu koy jënd ba kër gi newul dara ba mu koy jënd rasé na deux cent vingt cinq millions. ëpp na loolu sax. def si plus que quatre cent et quelques millions. ko. fitti ko ba mu set. raajaw ko da ko fitti ba mu set. dëgg la reprendre waat ko à zéro. la war na la borom kër gi mënoo tabax. dëgg la ni nga tabax dara rafetul. dëgg la boo dugg ci kër gi kontaan da nga ne petit palais nga dugg. billaahi petit palais la kër googu petit palais la tudd. dëgg la xam nga petit palais. mooy këram. mooy këram dëgg doo soxor. bul soxor am na fi sëriñ ñu fi taxawaalu. billaahi dëgg la morom ñuy taxawaalu fii. dëgg la di bal bal dëgg la kenn kenn mu bu lekk xaalis daal da koy bokk ak ñëpp. dëgg la naata nit ñoo ñëw ci këram. dëgg naata mën a la naata nit lay jox ndëkki. la naata nit lay jox reer. dëgg la bu ko neexoon du ko fekk. dëgg la bu ko neexoon du ko def. dëgg la dana damay faj. ku pare nga dem ñibbi. di nga la yor ci biir kër lu mat weer. loolu maa ko teg sama bët. dëgg la waa dix neuf bi sax seen xol di bon. ndax foofu la ñuy fanaan ba fanaan ci mbedd bi. dëgg la nga xam ne kooku jàmbaar la. mbéy laay dëgg kooku. di ko xaar yàlla may. yàlla na ko yàlla jàppale. amiin amiin amiin yàlla mu tokkati làmm ak cat. dëgg la di nga nit. dëgg la tant yàlla na tax taxaw gu ñuul. dëgg la taxaw jomm la. dëgg la ci kanam moo dàq. moo dàq dëgg la li ci ginnaaw. dëgg la weesu na. dëgg la yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér. jërëjëf loolu lañ koy mooy sëñ bi maa lay ziar. loolu lay ziar maa lay yàlla na yàlla jàppale. yàlla na yàlla mu ci làmm ak cat. a ñu ngi sa ginnaaw rek foo na woon la ndeysaan merci beaucoup lu dul Matar bég rek billaay sama xol sedd na may wax Thierno ku yor kurusu or ah? montu or chaîne or dëgg la ah kaanu or Matar téléphone loo deseeti dara portable ah? or waaw lépp or Thierno wax na ko lépp ba mu nekkee dix na mu nekk man jinne lu ma soxla ñu indil ma même bu or billaay dëgg la mu ne jinne yi ma yor Aliou ñoo toog maag moom mu ne ma jinne yi ma yor soxlaa or ñu indil ma moo fi ne na ko ku yor montul or chaîne or ah téléphone or kurus or kaanu or loo deseeti këram or. dëgg la loo dee seeti Matar. dara dàll or. dara aa ah? iPhone or ah iPhone or. Matar léegi lan la la Thierno. dara dara Matar micro or Matar. moom micro boobu ziar ba ziar lay génn. déggoom la Matar. <laughs> sëriñ yi xamante nañ seen biir waan kenn du Thierno. wallaay Thierno yóbbu na Thierno ñaat sëriñ. ñoo toppoon ci ginnaaw Thierno. billaay ana ñu. ñoom ñëpp ñu léegi kenn ñëmatul wax. Thierno kese dëgg bu mu ñëwee këram te diili mbay. dëgg la fa la ma fekk man kenn nettali mu ko. dëgg la. Taïb Sow ci boppam. dëgg la. bu muy ñëw ci seet kenn mu lay sow. xam ne ñëpp dégg nañ ko. dëgg la. ma koy jël bu bari. jox ko jigéen xaalis bu bari. jox ko bu ma fekk te diili mbay en partie gi nekk kër Kumba Gaaw la. kër Kumba Gaaw la dëgg bu foofu. dëgg la ma maasa tomba kenn nettali mu ko. dëgg la Taïb Sow day wax ba bay jooy. billaahi. ñu mu jooyloo bari na de Thierno. ñu mu jooyloo bari na. kon kay xam nañu xam nañu kenn. kontaan nañu Matar. jërëjëf mbokk yi. loolu muy li nga xamante ne ay euh, témoignage bu solo la ci ki nga xam ne mooy alaaj Thierno loo Sow ndax defe naa ne loo wax rek fekk na waxit la waxoon nañ ko ba noppi ndax defe naa ne loo def rek yow Sow tubaarkàlla defit la defe naa ne li ma naan ñii raamloo na leen ñii sukkuloo na leen ñii jooyloo na leen ndax ay xeeti teraangaam tey jii Lamine mi defe naa ne ñoo ngi doog a gise te 19 mais te 19 nag laay wax tubaarkàlla te tey jii confirmé na ko ndax confirmation bi mooy li ñu seede ci sëriñ bi yëpp dafa nekk ci moom defe naa ne alaaj ca nu mu lay sow li ma waxoon rek ne jant la ku ban ñu tiim la bul dox ci kaw réew mi loolu la yàlla dogal nu ci waay sooboo nag noonu nga ci tooyee teng si la boo dóoree day dellu sa kaw kooku muy king of the king le roi médecine traditionnelle di bàyyi sëriñ si chaque jour ma di ko wax ragal féete day xañ a wërsëg waaye ñun ñii dañoo féet moom moo tax bu ñuy wax ci moom bu ñu doyal ndax naan buy yokk mar la ngeen teg foofu seen baaraam ci kanam tuuti